salaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi seetaan tey seen benn émission découverte ñu ñëw tey pour découvrir li ñuy wax inspection du travail loo xam ne mi ngi fii ci dëkk bi mais ñuy liggéey ci entreprise yi ñu ci bëri xamuñu nu muy doxee tey ñu ñëw nag pour découvrir ko euh, te rek benn inspecteur pour mën a waxtaan ak moom lépp lu jëm ci wàllu euh, liggéey contrat ak euh, entreprise yi nan la fa contractuel yi war a liggéeyee maanaam képp ku am contrat ci biir entreprise nan nga war a mën a def ba tey euh, nekk ci euh, norme nga xam ne yow entreprise bi ngeen nekk ci euh, atmosphère boo xam ne kenn du am ay jafe-jafe ñu yéeg gis inspecteur bi après ñu ànd ak moom waxtaan ci lépp lu jëm ci liggéey ak ci entreprise yi ak lu jëm ci inspection du travail léegi-léegi incha ko waxee woon ñu ngi ni taxaw ak Mamadou Diallo Mbow inspecteur du travail ñu ñëw tey pour waxtaanee ak moom lépp lu jëm ci wàllum inspection bi ak seen liggéey ak ni ñuy def pour dimbali euh, travailleurs yi ci contrat yi ak seen diggante ak entreprise bi euh, Mamadou ñu ngi lay ziar. ñu ngi lay fay bu baax njaga di kontaan bu baax ci émission bi. Hmm. Euh, wax dëgg yàlla institution bu mel ni inspection du travail lépp luy tendre rek ci ñu gën ko xam vraiment lu ñuy sawar lay doon xam nañ ñu bari dese nañu maîtriser inspection du travail. donc wax dëgg yalla ñi ngi rafetlu bu baax émission bi té espérons que li fiy génn dina jëriñ bu euh, les les internautes. inshallah espérons. léegi lu jëm ci inspection du travail. maintenant yéen seen nan ngeen l'inspection inspection du travail waaw question bu am solo la te yaatu aussi. nagal naa ne émission bi du permettre ñu mën ko tënk hmm. mais inspection c'est ñuy jàpp mooy mooy suivi ouvrier bu administration du travail élément bu central de l'administration du travail. Euh, c'est organisé en région service régional à l'exception de Boudet Sénégal à l'exception de Rufisque zone france par région région boo dem a inspection du travail dirigée par un inspecteur régional il y a des missions il y a des missions juridiques économiques de contrôle Il y a toutes les missions. ni ci des kii bi émission bi dañ mais l'inspection d'al, da que moi, mooy ouvrier l'administration du travail le ministère du travail je suis euh, contact direct avec entreprise avec ak travailleurs pour régler les problèmes qui yenn maintenant fonctionnement de établissement bi comment ça se passe. D'accord. comme tout service l'inspecteur hein, inspection régional. L'inspecteur régional hum, mon ci régional c'est un inspecteur adjoint. Hum. Il inspecteur adjoint y a des inspecteurs et contrôleurs du travail. Hum. Inspecteur ñoom ñi nga xam te mooy ñi nga xam te ne ngi ci niveau bac au euh, niveau maîtrise. Uh-huh. maîtrise plus 2 quoi def moy ñi accéder concours de l'ENA euh, niveau maîtrise. contrôleur yi mooy ñëpp accéder par euh, niveau bac. d'accord mais boo xoolee ci fonctionnement bi danaka inspecteur yi ak contrôleur yi ñom dañu am ben genre symbiose bo xamante ne nii daanaka dossiers yi de ñu indifférenciée par dañ koy traiter d'habitude. d'accord inspecteur bi mën na gérer dossier bo xam ne contrôleur mën na ko gérer. d'accord donc inspecteur régional moo inspecteur adjoint les inspecteurs et les contrôleurs. d'accord ah. mais contrairement à d'autres services il n'y a pas une comment dire, séparation y yenn euh, documents certes mon nga un nga contrat am a ko du bureau contrat. Mm. C'est un inspecteur tout ce qui est contrat réclamation il moom donc affaire avons détaché xaw a et contrat y euh, yenn effectivement contrat il y ñu il y a des agents administratifs ils ont gérer tout ce qui est visa après ils nga inspecté inspecter inspecteurs yi vérifier nañ contrat Si vous déposé vérifier est-ce que clause du contrat est conforme à la législation ou pas est-ce qu'on respecte tout ce qui est salaire normal hein, horaire de travail est-ce que a une clause de à la loi. d'accord si aussi ok on met bon pour visa bureau visa ñoom viser les contrats. mais parfois il peut y avoir des problèmes mais il y a un agent wala un inspecteur boo géré tout ce qui est contrat réclamation yi donc côté bob non amna koy gérer. mais plus luy contrat ci entreprise est ce que dafa wara a spécialement si à l'inspection du travail wala yéen yéen ay doxal sen bopp ci biir entreprise pour vérifier les contrats. non non non contrat yi entreprise ñoo déposer déposé indi da ci am contrat yi xam dañ la par exemple un CDD de plus de trois mois dañ ko wara déposer avant exécution à l'inspection du travail. CDD dañ ko war déposé CDI aussi dañ ko war a déposé même si vous même si vous faites da nga employé nit ki sans écrit yoon nee na CDI la donc lolu aussi c'est une précision taille am na ñoo xam dañuy jël nit utiliser ko nan ah y a rien lié dara amul dara lu ñu lié quoi parce que amul écrit. amul écrit ni. des contrats moraux au regard de la loi CDI la. donc contrat yi dañ koy déposer inspection du travail inspection nag ci lay jël temps vérifier les contrats. xool est-ce que amul disposition yoo xamante ne ni c'est pas contraire à la loi. si c'est ok après ñu visé ko après nga ñëw. waaw point boobu nga taxaw noonu dafa am solo point contrat yi. parce que gis nañu fii entreprise yi dañuy exploiter nit ñi da ngay gis ku nekk ci entreprise euh, def fa trois ans quatre ans cinq ans mais du am sax CDD mais léegi ñooñu par exemple ñi nekk ci situation boobu ñi nga xam ne mosuñu leen signaloo benn papier tey nan lañ mën a def ba jaar ci yoon ba ñëw ci yéen. Mhm. ngeen mun leen orienter teg leen ci ci yoon bu baax pour ñu mën a am contrat bu en bonne di due forme. waaw xam nga foofu déjà loi bi ñu ma ko jëkk a réglé genre sanction la ndax principe bi mooy dañu war a bind. n'est-ce pas ndax pour des besoins de preuve contrat dañ ko war a bind. Mhm. bu bind amul yoon nee na CDI la léegi nag yow bu fekkee da nekk ci entreprise pour man la moyen de choses yi nga war a def mooy. commencé naa liggéey fenn dina dem ci structure état yi nga xam te ñooy gérer domaine bobu noonu ma lacc ni man dama commencé liggéey fi ne bëggoon xam lan moy sama ak ak sama yelleef mhm. boobaa dañ la expliquer fan ngay jaar bu dee yaa ngi fenn amoo contrat mu nekk domaine boo xamante ni écrit un écrit dafa war a am bu boba su écrit amul yoon nee na la yaa ce qu'on appelle une reconversion par majoration genre sanction la Boba contrat bi dañuy CDI parce que CDI contrat verbal valable. si contrat verbal c'est valable donc CDI lay doon. d' d'accord bu ci entreprise nga yow liñ lay teg du euh, inspection est là bu boobaa ndax ñun am rôle de conseil ñëwal nga ni demande à un agent soit ñu mettre la rapport avec un inspecteur ou un contrôleur nga ñëw exposer situation boobaa moom dina la wax en vertu des textes la la yoon may bu fekkee da requête plainte. Vous bind ko bu dee dafa war a xam ko supérieur aussi la voie à suivre. donc pour moi, aller vers l'information c'est une solution aller vers l'information information nag euh, administration du travail warul euh, euh, comment dire aller vers les employés les citoyens. Mm-hmm. ça se fait. Mm-hmm. mais peut être fur et à mesure ñu gën di peut être lii ni def je pense ah. que ni ci ça permet aussi de mieux vulgariser le corps et, et le fonctionnement de l'inspection du travail. Mais d'une manière générale daal booy liggéey fenn amuloo foog écrit yoon li que wax le CDI c'est une ko directe. a nous direct. maintenant euh, nous lu ci demee ci yenn patron d'entreprise yi dañuy am doole am ay connaissances et tout maintenant a des euh, employés yi que muñ l'inspection inspection du travail ñoom da ngay sonn da ngay dépenser xaalis da ngay jël par ci par là euh, côté boobu nan la est-ce que tey ñooñu.

li ñu réglé ci ay différents kenn xamul mais nak dafa am loo xamante ni peut-être nit ñi ñi ci def erreur moy dañu accuser à tort une mm-hmm. conciliation une tentative de conciliation lañu il y a pas une obligation de résultat néewuñu da nga wara arriver coûte que coûte à une conciliation dañu la defal de tout possible rappeler les dispositions légales et autres pour amener les les, parties à se concilier Si mm-hmm. dee nag dem nga ba nga conciliation mënul am ndax parti bu mu neex mu ñëw mu ne man bëgguma concilier wu boobaa yow yoon nee defal PV de non conciliation nga préciser les motifs motifs yi nga xam te ni moo d'accord ñu nga transmettre ko juge ñu bari nag dañ dul comprendre ni ñun foofu yoon dafa am lu ñu ci yem lool. Mhm. moo tax ñu jàpp ni parfois dafa am lu ne ci suuf da ngay ñew mu ni convoqué nañ ku ñewul wala ñew na inspection bi defu ci dara alors que inspection dañ ne ko yemal fii nii defal tout ton possible pour am conciliation boo ko amul yóbbul tribunal bu ko defee ñun bu ñu amul kii dañ ko yóbbu tribunal mu dem tribunal kon mooy mujjee atte ci la tout à fait parce que juge moi atte ñun atte wuñu d'accord a def tentative de conciliation genre facilitation tout à fait ndax conciliation bokkul qui ci suñu mission principale d'accord mission principale moi contrôle moi contrôle mais pas conciliation mais mais euh, ak dossier, yi ni ñuy dans daanaka léegi boo wutul mission conciliation mais la léegi nit ñi gën gis que mission contrôle ok

travail bi ñëwé ñun ko démal ci agent bi moom lañu imputé sa dossier bu ñëwé koku moy xol en fonction disponible ak calendrier bi. Mhm. mun le tel jour la leen convoqué. jour séance bi bu joté les parties sont tenues de de de faire à la convocation bu ñu ñëwé inspecteur bi fay def fay lire requête bi jox la parole aux parties tenter la médiation bu fekkee am conciliation. Mhm. ñu def PV de conciliation bi. ak modalité bu fekkee dafa am ay incidence financière. Mhm. mu xol nañ la koy fayé bu fekkee non-conciliation aussi, nous constatons la non-conciliation, transmettre le dossier au tribunal, après nous suivre au tribunal. Ok, mais les jobs des licenciement abusif, parce que nous avons une bataille, jékki-jékki ñëw licencié benn employé comme ça wala jékki qui toogloo au sans salaire sans dara des jékki arrêté euh, genre mun naa ni contrat brusquement. Mhm. léegi xeet yu demee un loolu lan la yoon may. Mhm. employé bi pour mu def ko. waaw mooy li ma wax sànq rek mooy plainte bi yow

et par la suite on s'est dit que ce n'est pas la peine On a une am possibilité bu on neexee mu directement juge on avons une inspection, inspection conciliation peut-être de m'arranger. arrangé dem directement au tribunal parce que aussi on avons des fois bu ñu porter plainte C'est une question de principe Nous bëgg a dem devant le juge mu wax le droit parce que inspection conciliation parfois des fois nga pratique bi mën parfois pas tordre euh, la à la loi mais mm-hmm. parfois man nga juital logique conciliation bi ba par exemple nga bàyyi yenn affaire yi xam nga conciliation ku koy wax wax des concessions euh, c'est pas. donc am na ñoo xam ne dañuy dañuy dañuy ñu dem directement tribunal d'accord donc tribunal moom moom mooy juger mais nag bu ñu saisiré moom incha allah ñun on fera le nécessaire ba bu fekkee yoreel nañu kii bi droit ñu fay ko ko d'accord mais est-ce que plainte boobu tey euh, est-ce que dafa am app pour ñaata durée lay temps pour def plainte wala c'est à durée indéterminée mun na heure bu ko neex mu yobbu waaw employeur ci yoon. vous savez dafa am euh, lu ñuy wax la prescription ci yenn droit yi. Hmm. na ci droit yo xamante ni au delà de 5 ans mënoto ko lacc motax à chaque fois boy liggéey fenn man motax euh, surtout ay cotisations sociales dama na nit ki du néga néga néga néga néga ba. ba ñu dàq ko wala moom am problème mu ñëw naan dem naa kees kenn kii ma bi nga nekkee en activité ci ngay lijjanti yenn problème kenn versé ko foofu ah ma ne kenn versé lu ko kenn versé lu ma kenn daa ma kees wala IPRES IPRES sax mën na tene parce que IPRES euh, déforestation à long terme la hmm. mais am na ci yoo xamante ni daar daar la mais en tout cas tout ce qui est tout ce qui a un caractère de salaire yooyu moom au bout de cinq ans dootoo ko mën a laaj sauf mu euh, li ñuy wax euh, Euh, employeur bi déféré au ñu ñun ko waatal mhm. bu nanguwul waat ñu jàpp ni kii peut-être fayu ko woon mais daal au delà de cinq ans am na yoo xam ne mën a laaj d'accord mu mel ni leeral yooyu am na solo trop nit ñi xam naa dinañ ci gën a sukkandiku pour gën a xam seen yelleef ak seen seen droit li mu leen may ci wàllu liggéey mhm. léegi ñu ñëw ci contrat yi li demee ci contrat yi contrat yi lan mooy euh, problème yi ak nan la war a nit xamee contrat bi ñu ko signeel lan mooy ab tenant yi ak aboutissant yi Il y un contrat à durée déterminée un CDD. Un contrat à durée indéterminée un CDI. une prestation un prestataire Un euh, contrat de stage non, nan la lan moo ci ok euh, question bi daanaka peut-être différence entre type contrat et les conséquences juridiques. xam nga principe contrat de travail nous mon intéressant. l'inspection du travail contrat de travail est ñuy Il y a d'autres types de contrats. Mhm. n'est-ce pas contrat de société un contrat de mandat mais il y intéressant un contrat de travail Le contrat pour travail, ni nit ki jël hmm, mettre à la disposition Ben employeur mën na nekk nit wala personne physique mhm. personne morale y a une rémunération mais il faut avoir un élément central Moi, lien de subordination juridique Il faut différencier le contrat de travail avec un type de contrat il y a ni type de contrat prestation de travail parfois. pour rémunération Mais le mais lien de subordination est manqué. Mais le lien de subordination bi à l'employeur permettre employeur bi mu joxe ay ordre n'est-ce pas. Uh-huh. suivre l'exécution, vous pouvez sanctionner en cas de non exécution. donc loolu Amérique, il rek a des contrats contrat de travail. d'accord contrat de travail le principe du CDI. le CDI le principe mais les autres types de contrats restent valables. n'est-ce pas CDD comme ni contrat à durée déterminée n'est-ce pas mais dañ la on ne peut pas pourvoir durablement euh, l'activité bi nga xamante ni cœur de métier bi mhm. n'est-ce pas par un CDD en principe CDI il est a doon à durée indéterminée mhm. maintenant nag puisque CDD c'est à durée déterminée c'est en principe temporaire donc on na ci tâche yoo xamante ni ngeen def CDD bu jeexee ngeen renouveler pour ngeen jàll CDI Amna tu stage amna, essai amna, essai mom comme son nom l'indique permettre les deux parties ku nekk mhm. bu dee travailleur est-ce que environnement bi intéressé na conditions de travail yi. employeur aussi mu xool est-ce que kii muy est-ce que il fera l'affaire. d'accord Si yooyu baaxee mën ngeen continuer am na yoo xam dañ koy def ci contrat mu nekk benn clause d'essai am na xam dañuy def mu séparé mu nekk contrat d'engagement à l'essai. d'accord Et stage aussi loolu moom am na benn décret de 2015. bu ko mhm. gën a réglementé. Mhm. yoo xamante dafay permettre les jeunes surtout les diplômés. foofu aussi parfois dina am abus ndax des fois nga gis. Euh, c'est un gardien Il amul diplôme ñun diplôme essai lay la euh, stage lay def stage stage des motifs dañ euh, pas exposé parce qu'on parle de c'est un décret donc c'est rapport de présentation. d'accord donc il faut que nous c'est pour les diplômés de l'enseignement moyen général et supérieur. d'accord donc il faut que am habitude mais d'une manière générale contraire.

def nañ ci ay ay ay ay yu bëree bëri mais li koy justifier bokk na ci boo xoolee Dakar Dakar presque mooy polarisé man naa ni 80 pour cent euh, économie Sénégal mi ngi Dakar. Mhm. entreprise yu bëri aussi ñu ngi Dakar. imaginel nombre de contrat bi ñuy déposé par jour parfois damay ñëw ci euh, femme bi gérer contrat yi ma xool man ko muy attend yaa ngi ci numéro bii nii mu li may jot ci contrat sàmm c' est extraordinaire. loolu day bari contrat yu bëri nañu kii nañuy jot par jour. agent yi du vérifier contrat aussi mooy suñu du kese mooy suñu mooy suñu mission. ya nga gis conciliation yi ya nga gis parfois des réunions comité d'hygiène installation comité d'hygiène euh, dem ci élection dem contrôle comme li ma la ni le contrôle mom moy suñu euh, mission principale. conciliation yi aussi donc c'est pas du tout évident contrat yi nga déposé ko rek ñun la dans deux jours nga ñu jël ci ko mais nak man man na la wax ni la ay efforts yu bari bari ñu koy def ndax bu fekkee ay deux ba un ba.

moyens moom bu ñu ko na nek des moyens humains hmm. matériels moyens humains yi mën naa wax ni foofu tamit wax ni ki amélioration ndax bu njëkk inspection Dakar bari bariwul won personnel mais légui wax deug yalla ak promo yu mujj yi xaw nañ ko renforcer mais ba légui dess na parce que comme ni mo la wax Dakar ni mu toll mënoon nañu am fi Dakar au moins deux à 3 inspections man na fi am wala inspection du travail ñëw rek mom nekk ci immeuble bo xamanteni ni ba ca kaw mom rek ñoo fay n'est-ce pas donc foofu xaw na sooxee mhm. mais ay ay effort ñu ngi koy def mooy matériel yi aussi mooy côté logistique bi foofu aussi y a un effort à faire mhm. waaw y a un effort à faire parce que comme nous ko waxee contrôle mooy suñu mission mais parfois ça pose problème Il y a pas assez de chauffeurs oto yi aussi doyul nous sommes obligés parfois suñu propre véhicule la ñuy jël pour dem contrôle Et donc euh, je pense que côté boobu moom y a des efforts à faire mu mel ni kon lancé nga appel seen ministère de tutelle

nous avons bari un contrat yi les prestataires ay prestataire la wala ko contrat li avons les cotisations sociales alors que n'est pas compliqué Ce n'est pas compliqué si vous expliquez parfois dañ non je xamoon que contrat mhm. donc les usagers les citoyens nous avons une culture d'inspection. d'une manière générale di dem ci administration Ils loolu di administration pour demander parce que l'administration de proximité ils faut foofu tamit inspection am na fi jouer ouverture hein gën tamit euh, vulgariser li ñuy def ndax ñu bari xamuñu ko donc yow vraiment ñu ngi lay remercier bu baax ci lool nonu di yaakaar ni xam naa incha nañ am yeneen yeneen occasion incha pour gën a gën a gën a gën a développer waaw comme ni ngeen ko déggee mi ngi noonu donc ñu ngi lay remercier bu baax di wax ni bépp employeur bépp employé ñu ñëw inspection du travail pour gën a xam seen yelleef seen droit ak lépp lu leen euh, charte euh, inspection yu may ak charte seen liggéey lu leen yan droit la leen may pour ñu ñëw xool ba xam si ñu ngi ci en règle ba xam seen contrat li ci nekk ak buñ ko comprendre am na ñoo xam ne jànguñu français xamuñu lu nekk ci biir contrat yi. Mhm. yooyu aussi baax na ñu ñëw biir jege ci inspection du travail pour mën ko xam donc ñu leen jox dig daje ba beneen yoon merci. jërëjëf Ndiaga merci beaucoup <laughs> merci merci.